dañuy rafetlu d'abord euh, le président de la république jël décision de na xalé yi déllu école le 2 juin parce que xam malgré euh, toutes les difficultés induites par la maladie dafa am activité activités xamné ni ko des activités à la limite incompressibles c'est-à-dire faw mu am parce que jangou xalé mom mënul xaar parce que day doy war après ñun ñi nga xamné def nañu ay année blanche xam nañ dafa lu suñu cursus donc ndokk bi président de la république jëlee décision boobu waaye bi mu jëlee décision bi aussi jàpp nañ ni parents yi am nañ njàqare njàqare ndax faw ñu am ay jumtukaay yoo xam ne pour protéger les enfants njàqare ndax dafa am ay décision yu ñu jël par exemple dañ ne xale yi waratuñu euh, dugal yenn lekk yi ci biir école yi te muy dëgg ñu jàpp ni aussi yenn commerce yi waratu am ci biir école donc xale yi dootuñu mën comme nañu daan def récréation di jënd yenn mbir yeex yoy te nit nak xalé surtout fu mu nekk war nay mën di lek di nan bu ko défé wa Proxim bi ñuy gëstoo loolu yëpp daal né ñaari ngi nii yoo xam war nañ ko def benn bi moy wut ay thermoflash c'est très important je pense que tay Proxim jox na école bu nek bir Médina ñaari thermoflash nga xamni kuy dugg ci bir école bi mën nañu natt sa température bu fekk ne dafa jéggi dayo ñu mën la yobbu jël ay yenn dispositions yi dafa naa lu am solo la ñu teg si ay masques masque defe naa jox nañu huit cent masques yoo xam ne école bu nekk cent masques je pense c'est important loolu aussi def nañu ñu teg si nag ay biscuits yoo xam ne c'est bien emballé teg si ndox mu bëri parce que xale dañuy soxla ndox ak yeneen jumtukaay yoo xam ni teg nañ ko si pour euh, pour xale yi mu nekk lu am solo ñu siy gërëm waa waa Proxim au nom euh, de de toute la Médina parce que nous suñu bokk suñu suñu doom dañ ci bokk ci donc nous sommes contents de bi ñëwee aussi fekk que eh, inspecteur bi mu remercier ñu euh, lancer un appel à toutes les bonnes volontés parce que mbir du doy donc il faut que nous rek nga indi ñu dimbali xale yi aussi au niveau des écoles nous avons fait des dispositifs parce que les yi ku am choses nous ne dafa nous le dire tout de suite en charge. Et tout ça va contribuer à rassurer les, les parents. Donc, c'est ce que nous avons des fratries sont proximes. Ce que nous du goulet, am que ay ay ay yu comme initiative au profit des enfants. muy ndimbal que xam ne lu am solo pour xam ne lu ñu euh, pour élèves yi reprise bi nga le 2 juin ni ko ministre de l'éducation. éducation a été yi ay là euh, ay masque la 800 masques eau de boisson euh yu bari ak boisson sucrée ak yeneen ñi jëfandukaay kay yo xamné dina tax xalé yi def reprise bu baaxa baax ci école yi parce que ne xamné né xalé yi dañuy reprendre ko war nañu am euh, mesure yo xamné mesure distanciation la mesure yoo xam ne mën la mën a euh, tax ñu mën reprendre cours yi euh te duñu am jangoro bi duñu duñu duñu contaminer ci jangoro bi Euh, en tout cas lu ñu lu ñu kontaanee la lu ñu bëggee la ci geste bi nga xam ne directeur général def na ko fii ci inspection de l'éducation de la formation de Dakar lii du loo xam ne lu njëkk la ku ne xam na ko yàgg na ñu jàppale ci école yi chaque fois damay toog directeur woo ma wala ay collaborateur woo ma ni ma directeur général def ne lii def na laa euh, tey nag moom moom si bu moo wax ba ñëw bu fii diñ ci gën a déggee mooy loolu bu yónnee woon danañu neex mais moom kese mu sol dàllam wax ba si ñëw fekk ñu suñu ne euh, inspecteur lii laa leen indi lii laa leen jàppale pour suñu école yi pour reprise bi mu gën a mën a baax ci école Médina yi loolu loolu lu ñu gën a bëggee la lu ñu gën a kontaane la di ko santé yàlla di ko santé euh, mm, ci ci ci ci geste bi ku ne xam na ne li ci école yëpp ak li école yi soxla yëpp état mënu ko def état mu ngi def lu nekk euh, ku ne xam ne ko waaye moom kese muntu matale lépp donc soxla lañ partenaire yu mel ni moom soxla lañ doomu dëkk bi nga xam ne ni moom ak ak ñeneen ak ñeneen pour que école yi gën a mën a jëm kanam pour que njàng mi gën a dox pour que reprise bi nga xam ne war nañu ko def le 2 juin ñu def ko ci condition yu dal xel la parents yi soxla nañ ko parce que seen xale yi ñu ngi dem ci école yi jàngoro jaa ngi law bon bu nekkee ne ñëw na ba indi ñu jumtukaay yi jumtukaay yi dina tax xale yi gën a gën a jàng xale yi reprendre ci del si dal xel te ci condition yu baax a baax ba nga xam ne jàngoro du law ci ci gox bi en tout cas loolu daal loolu loolu moom lañ ci gën a doole di ko sant di ko rëm di ko ñaanal ay ko ñaanal yàlla yokk ko yàlla yàlla eh, eh, yokku liggéeyam yàlla taxawu ko aar ko bu mu gën ñu jàppale encore ci ci ci liggéey bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk muy liggéey njàngale mi ci fii ci Dakar Plateau. inspection éducation la formation Dakar palato moom ñeenti tënk commune la tënk ci ci gox bi mooy commune nu Fass Colobane Gueule Tapée commune nu euh, Fann euh, commune nu Médina commune nu Dakar Plateau biir biir Dakar ñeenti communes yooyu moom la inspection bi euh, moom la élif ci njàngale mi ci élémentaire bi comme ci moyen bi